depuis 2007 aussi la tambali di def euh, couture ah, ñu bari nak rafetlu façon yére yi nga xamné ak modèle yi nga xamné mom la laa leen di proposer ah ci diggante bi mu am rek xam nga rek des fois day am ay samba boy yo xamné duñu bëgg ku liggéey ñu ñëw am nu ñu def ak man ba boutique bi tëj bi mi tëjee donc ma delluwaat ba xawat

Euh, sénégalais yi sénégalaises yi tout le monde ñu ngi ubbi nañ boutique bu bees euh, ci avenue Bourguiba bi donc ñëpp la ñuy ñawal dañuy ñawal góor dañuy ñawal jigéen dañuy ñawal xale dañuy ñawal ñëpp boutique bi prix yëpp nag mu ngi si waaw amul amul prix nii rek ñëpp a ngi si ku ñëw rek di nga fi gis sa bopp incha allah waaw au fait dañu ñëwoon sàcc si boutique bi boutique bi boutique bi daanu dañ ñëwoon sàcc ko jël sama machine yi jël sama sama yëf yu bëri fekk boobu euh, dix jours avant tabaski la woon c' était très dur pour man donc je pouvais plus avancer quoi moo tax ma dellu ginnaaw reculer pour mieux sauter donc euh, maa ngi am yaakaar ci nit ñi ñu jàpp si aussi ñëw xam ne que daan doole rek la comme ginnaaw dañu ne Sénégal c'est un pays émergent ñun ñëpp suñu loxo def siy bokk pour ñu mën a yokk émergence su réew mi. mouvement nag yàgg naa juddu ci réew mi mais je pense que c'est la première fois ñu gis artiste bu jigéen def mouvement boo xamante ni dama si bëgg a insérer des femmes les jeunes yi nga xam ne pour wàññi un peu taux chômage bi parce que bëri na bëri na trop nit ñi xale yi bu ñu xëyee ñu ci bëri du ñu xëy amuñu liggéey te loolu dafay xaw a metti tuuti ci way jur yi na ci kër yi donc d'une d'une part ñu mën a ubbi def euh, mouvement créer mouvement bi et puis ma profiter aussi ci seen ñëw bi pour vous donner rendez-vous le le 6 mars incha allah au théâtre Sorano pour mun fessel aussi mouvement bi mun wane nous aussi suñu tank ci Dakar là la ci Sénégal le mouvement bi nek mu ngi J'aime Dakar parce que moi je suis de Dakar donc aussi J'aime Dakar mais J'aime Dakar dafay law fépp la ci région yi fépp la ci diaspora bi fépp daal fépp fu nous nit soxlaa rek ñu mun fa taxaw pour yaatal Sénégal gën ko mun fessel émergence au Sénégal gën a taxaw xale yi am xëy jigéen ñi am dama au fait de 2018 à 2020 mu mun am insérer 1000 emplois loolu laay tu te ci lancer appel képp pour ci tu jàpp nga et puis je vous donne rendez-vous le 20 Inch'Allah, et je prépare mon album aussi xam nga ci àddina lañ rek il faut des projets il faut des des trucs parce que euh, de base je suis artiste je suis euh, euh chanteuse donc ci loolu base yooyu eu la la jóge pour mun a am fitu ubbi boutique bu ma tuddee Abindour pour mëna def nangam pour mëna def nangam loolu yépp tamit na dama koy gërëmee sénégalais yi nga xamné ñom ñoma dolel sant yàlla ak yonent bi sant sumay wayjur sant suma famille fii yëpp suma famille léegi ngeen gis yu su jóge fi suma sœurs yi ñu ngi nii toog ñëpp a ngi fi donc loolu dama koy sant yàlla rafet lu ñi nga xam ne aussi dañu ñëw pour jàpp ci samay mbir parce que yombut nga woote dara nit ñëw rafet lu ko ñëw taxaw loolu yombul vraiment maa ngi remercier ñëpp Parti socialiste, je pense que c'est plus d'actualité parce que j'ai déjà fait ben, euh, conférence de presse et j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc je ne peux pas y revenir encore parce que c'est voilà, c'est du passé quoi pour moi. Maintenant, je amal solo moy que je tek muy suma mouvement j'aime Dakar. J'aime Dakar na dafa yaatu. taxawul ci ma wala ci ma Demba dafa yaatu donc képp ku nga xam ne gis nga ci sa bopp ñun itam ñu gis la suñu bopp ci yow dinañ ànd lëkkaloo ak yow.